asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi leen nuyu leen siyaare nu dikk ci xasidak muqaddamatul amdaax nu àggale li desoon ci buntum ñaareel bi muy alif dafa tolloon nag ci di tàgg saxaaba yi ak di leen ñaanal ci juróom benn bayit ya jiitu mu tàmbalee tey yaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa ma yamsahum fal matxu matxun muxatta'u yow mi liggéeyal yonente bi foofu dafay wax waxin wu neex lool day mel ne jëmm joo xam ne ñaar la jënn ji di wax ki ci des daa mel ne daal ab jàmbur bu taxaw ne di ko wax di wax ak moom moom sëriñ bi naan ko yow moomu kat di liggéeyal yonante bi bul fàtte ay saxaabaam ndax ku leen fàtte saw tagg bu meloon ne lu jub mel ne lu teg ci yoon it far na jàddu yoon kon boole leen ci mënul ñàkk moom nag daa mel ne xam gi xam looloo tax lu jiitu muy wax bayit wi sax ñoom la doon tagg ñoom saxaaba yi bi waxee bayit wii nag da caa di teg ñeent ña nga xam ne ñoo ca gën di kilifa tàmbale ci abu bakri ni siddiqu zu sidqi wal wafaa rafiqu nabiyil mustafa al waara am ba u abu bakar mi nga xam ne ab dëggalaakoon la te muy boroomu dëggal di ko xam ne daa teel a gëm yonante bi gëmee ko nu ne nag boole ci waaye doon ko matal ak àndam ak kóllëreem ci digganteem ak yonante bi ba nga xamee ni yonante bi mi ngi jóge Màkka jëm Madina ñoom ñaar ñoo àndoon ca xunt moomee ñu duggoon ba leen yéefar di wër ci loolu la ko tagge di ko yëkkati ko ay daraja it mu teg ca Seydina Umar mun abu xafsin faaruq charwaahu naadirun bi yantazza diinul mustapha ijazaw Abu Hafsa boo ko déggee rek mooy Sidna Omar alfaaruq it moom dàkkantalam la mooy laqabam la boo ko déggee xamal ni mooy Sidna Omar mooy tàqale dëgg ak fen mu ne nag kooku moom ndendam ku mel ne moom daal lu néew a gis la gis ku mel ne Sidna Omar lu néew néew la ci jëmmam nag la yàlla teddale lislaam wax nañ ne bi mu duggee ci lislaam waa asamaan sax dañ caa bég lool bu soraa li ahli sama wal kullu yaxtaaru wax nañ ne it yonent bi lu jiitu Seydina Omar dugg ci lislaam jullit ñi dañoo néew doole lool doon làqatu lool waaye daal bi mu dugg see rek dañoo daal di am fit lu bari ca lañ daan nëbbu ñu di ko fesal di ko génne moo tax ñu di ko ci tàggee ne ci moom la diine yi Mustafaa ji tedde daal di yëngu bu baax nag daal di génn ci ruq bi mu newoon génn ci penc mi ñëw ci penc mi loolu la taggee na Omar afi sax bi mën daham na afaana dal xayaa lahu nuur summa nuuru ni'mal mu bawiyu waaw ndax saxaaba yi am na ci kenn ku mel ne ibnu afaan Usmaan moom ndax am na kenn ci saxaaba yi ku mel ne moom ah kooku kat mooy boroom kersa ga kooku mooy boroom leer ga tegaat ak leer dañ koy dàkkantelee sunnu rëy ni sunnu rëy ni moo booy borom ñaari leer yi yonent bi sallallahu alayhi da koo jox doomam ci tudd ya mu faatu mu jox ko ku tudd Umu Kulsum mu faatu yonent bi ni ko bu ma amaatoon keneen joxaat la ko. ñaar ñooñu nag mu dencoon ci leeri yonent bi moo tax ñu di ko woowee borom ñaari leer yi ci loolu la ko sëriñ bi tàgg ne loxoon nuuru summa nuuru amoon nag leer dellu amaat gëneen loolu di daraja ju kawe kawe ci moom waaye di boroom kersa joo xam ne it miin nañ ko ci moom lool ñu koy rëy rëy ay ngëneel tagg gi mu koy tagg nag tax moo tax sëriñ bi naan ndax ki saxaaba yi am na ci ku niroog sidna Usmaan abu sibtayil muxtaari wa huwa ibnu aliyun ala faxtiira ni'mal mujarra'u baayub ñaari sët yi baayub ñaari sëti yonante bi kooku nag mooy doomi bàyyi tax tudd aliyu te wuy wuyu aw turam lool maanaam yi mooy aji kawe waaye noonu la kawe moom di ko yàlla tànn waaye di ko yàlla ñemeel xam nga ne si na aliyu moo jur xasan ak xoseyn xasan ak xoseyn ñooy seti yonante bi moo tax mu tàgg ko ci ne ko bàyyi ñaari set yi Seydina Aliyu doom yi Abu Taalib la Abu Taalib ak Abdullahi mi jur yonante bi ñoo bokk bàyyi moo tax mu ne ko doomi baay ji maanaam doom mi bàyyi la ci yonante bi tàgg ko na ne ku yàlla yëkkati la ku kawe la te ku yàlla tànn la te ñemeel ko kon bi mu ne bul fàtte saxaaba yi dafa indi ñeent ñooñu tàggalee na mooy ñeenti kilifa yi asaxaba rasulillahi inni xadimuhu muhibban lakum fillahi wallahu yaklaw yéenay saxaaba yi yónnante bi man de maa di ab liggéeykatam ndegam yéenay saxaaba yi may liggéeykat bi nag kon cofee rek a war dox suñu diggante bëgg naa leen mbëggeel gu tar ngir yàlla mi ñu seq te yàlla moom dana ma aar wala yàlla mooy aare yéen daal yéenay saxaaba yi man maay liggéeykat bi moo tax nag bëgg naa leen ngir yàlla ko noo ngi am foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu